ci biir nit ñi di waxanteeg nit ñi ñu jàpp que ni kii nekk ci biir nit ñi mu ngi ci biir nit ñi moom ak nit ñi ñooyam fekk yamuñu boobu xel mi dem na parce que bëgg yenn yi ba mu jaral la yenn yi ba mu obsédé te mu leer la ne lii nii amatoo sens pour jot ci loolu mën naa yóbbu xel day baax ay psychologue ay nit jege la di waxtaan ak yow pour mën a delloo sa di nga def ay bêtises. Ah, na kaddu yi euh, ñaaw na parce que quand il va jusqu'à dire que euh, waxul dëgg du nitu parole ñu bëri rafetlu wuñ ko mais aussi am na lu mu wax nee na Abdoulaye Wade nit la koo xam ne doom ji rek moo ko ñor te loolu aussi est-ce que bu ñu gëstoo li xew ci parti bi diggante 2004 ak léegi ñu bëri duñ ko jox raison dans PDS moo xam ne moom mooy buur mooy mooy bu déjà foofu am nekkee la du concret mais depuis son départ aussi euh, c'est c'est lui qui qui qui est là. ah moom li président Abdoulaye Wade def ci moom def ko ci Karim Wade quand parle de lui c'est le président Abdoulaye Wade ki la fayal njàng nommé la ci poste ay ministre def la PM def la lu ne. Mm-hmm. loo xam ne doon woo ko ci say waajur mu def ko ci yow yaakaar naa kooku def na ci yow loo xam ne def bu àndoon a xelam li ma la wax sànq du ko wax mais quand on parle de de président Abdoulaye Wade dafa bëgg Karim dafa doomam mais c'est normal waajur wu ne doo bañ sa doom waaye le président Abdoulaye waat def na ci ay nit ñoo xam ne juru leen ci loo xam ne def ko ci Karim Wade tey am na ci ñu bari ñoo xam ne bu leen ba ci le président actuel muy le président Macky Sall ba ci waajuram nekk ci lalu hôpital di ko ko wax ne ko lii le président Abdoulaye Wade defal sa waajur góor defalu la ko le président Abdoulaye Wade nag il mais Karim nag yàllaa ko def ci xolu nit ñi yàllaa ko def ci xolu militant yi et ñoom ñi lay wax ñëpp naan la Karim Karim Karim Karim Karim bi ñu nekk au pouvoir kenn attaqué wu ci Karim ñoom ñooñu bi ñu daanoo ñoo dem ci le président Abdoulaye Wade ñoom ñoo ko dem gis ne ko tey ak situation bi nu mu demee ak lu ñu gis le président Macky jël Karim Wade tëj ko ci biir kaso bi ñu toog pendant trois ans gisuñu Karim yi ñu mosul def politique ñëw taxaw ne Karim muy am des milliers de visites fi nga xam ne moo nekk prison Rebeuss mu dem ba nekk patate chaude ci loxo le président Macky mu jël ko génne ko ñooñu ñoo demoon ci le président c'est un travailleur kenn mësu koo dégg mu wax lu ñaaw kenn mësu koo dégg mu xaste il est l'homme le plus calomnié dans ce pays là ah, loolu yëpp def nañ ko ko ah, mais yàlla yëpp am na am na solo ah, je d'accord avec vous mm-hmm. mais tey jii yenn saa